ayca salaamaaleykum mbokk Bambey salaamaaleykum mbokk VFtv maa ngi len di nuyu di len ziar di am mbégte ak contentement hein ah, di len dalalat ci sen émission bi nga xamanteni bi du len émission bi nga xamanteni bi bii lay doon tay nak fësal dama ci kontaan parce que déplacer wu il est que ju def ko jurbel dañoo ñëw ba bambay fekk ma fi ma dëkk dëgg du neex ma wara woné samay ñi nga xamanteni bi bax rek ci lañuy dox tay dama ñëw sét ci ko xamanteni bi du kenn ku borom salon bi nga xamanteni bi laf cat xale bi lu mu maquillage bëgguma lu mu may ko but aussi buguma xale bi nga xamanteni bi ay cils mo ci gën xale bi nga xamanteni bi ay ongle mo ci gën xale bi nga xamne bu bax boko ko da ngay seet ci kan Farba tay mom la seet ci mu nek fi ci Bambey jàkkaarloog en face mairie bi kep ku bëgg lu bax ci tabaski bi rek da ngay di doxal top Farba mu daal di lay sajjal lu am jom sama gars tek len fof sen loxo ma may len clip dugg Farba ñu daal di wéyal doxal def lu ñu saf ca bami mom ay ca bu baxé ñu dem ay ci mbokk téléspectateur VF TV mbokk internet, yi ma ngi leen di nuyuwaat bu baax encore une fois tay nag macha allah damaa fop trop ah parce que dañoo déplacé wu il est que ñu défé ko bel, mais dañoo ñëw fi bambay comme ni ma leen ko expliquer rek ci commencement bi ñëw sét ci kan xalé bi nga xamanteni bi dafa baax gën ki nga xamanteni bi lepp lo xamné rek maykabul bëgguma lepp lu mu ongulul bëgguma lepp lu mu silul bëgguma macha allah mu nekk jigen bi nga xamanteni bi dafa gëm bopam hein ah, ñafé rek moko moko moko moko ñox ay famé allah allah léegi dama leen di bàyyi rek mu daal di nuyoo ak yéen dëgg lu neex ñu daal di wax suñuy gërëm def lu saf pourquoi pas tey damaa bëgg dañuy sànneek def lu ñu neex parce que waa Bambey xewle maa ngi leen nuyu di la ziar Fat Ba Fat Mati Moyes maa ngi lay ziar bu baax Ndeye Alima ok tey nag dañoo am mbégte ak contentement ñoo seet sa salon bu yànj bi laf cat war a yow xeetu baax nga expliquer ñu ah euh, say xeetu say xeetu maquillage lan la ndax man li ma make up macha allah jongo mana lol sax ah ak tabaski bi ñu jëm si jigen bu la bu la top rek euh, alaajem dina bég waaw neex neexam dina bek pourquoi pas ndax euh, macha allah say xeetu make up dal amut di la wax ni nak euh, tay mom ñang lay dalal ci biir VF TV ah première chaîne DJ O Femme di la wax nga nuyu len bu baax ak tay lan nga yëg wa parce que man mom vraiment dama am mbégte ak contentement bi ñu défé émission bi fi nga xamanteni bi fi la dëkk ñu ñoo sét ci la. waa Ndeye Alima man mii aussi dama kontaan vraiment kontaan naa trop ndax tamit lii dafa neex nga ibbi salon Bambey bés mu mel nii ñu ñëw defal la ko sa salon kon kontaan nga war a def te sant naa leen aussi gërëm leen. léegi dama bëggoon xam yow ya salon bi sa moyenne bopp nga demee ak kan moo la jàngal xeetu make-up fan nga jàngee salon wala yow da nga toog a toog rek mu nekk métier boo xamante ni bii sa passion la da nga ko bëgg bëgg ko dund nga dem ba tey macha allah nga réussir ubbi sa salon bopp. non ñun nag moom dañ ko jàng. dañ ko jàng waa dañ ko jàng fii lañ ko jàngee Bambey. aji ngoone moo ñu ko jàngal. nekk ku baax nekk tamit ku ku laabir ba tey jii ñu mën a def lii mën ko defal doomu aadama yi deug la legui comme aji ngone mo la jangal tata aji dañ koy nuyu bu baax ñang les ziar yow tamit machallah parce que yow tamit euh, kep ko xamanteni bi rek euh, amon na xew su demul ci tata aji mu solol ko buguma euh motax tay machallah dañu ñewon set sa élève bi nga xamanteni bi may nek bambay en ah, nek ci marché bi en face euh, mairie bi di def xétu make-up yu baax wa yamu ci lolu nak amna xétu parfum diw yo bëgg ay perruque yeen yi nga xamanteni bi tabaski bi ma ngi ñew pourquoi pas ngeen daw ci gaaw ñëw si sama jongoma ju ñaawut ji nga xamante bi ah mooy Farma mu defanteeg yéen lu baax ci xeetu coiffure yu baax ah tresse yu baax lépp loo xamante ni bii rek jigéen daf koy soxla rek soo ñëwee mu bégal la ba nga bég te dara du yëngu léegi dama leen di wax ngeen daw si gaaw ñëw seet si ko mu lu baax dama bëggoon xam ndax yow say moyenu nga salon bi wala dafa am ku ci bi la wala lan parce que dégg marié nga <laughs> waa marié na moom marié na bu yagul mhm. waye avant may marié la ibi salon sama yaay moma jappalé bu féké yalla deug rek la bëgg parce que wajur yi moom mhm. dañ lay dugal ci liggéey jappalé la té ma ngoy sante tamit aussi di gëreum ndax lépp mom la tamit señ bi aussi bima ci lum amna tamit lu ci duggalalé ndax mënul ñàkk fuñ leen fuñu tuddé wajur yi rek war nañ tuddu jëkëri ndax tamit ci lañ bokku vraiment ma ah, macha allah dégg ngeen limu wax noonu parce que ñun tamit euh, nenañ nañ doolee ndox wa mom bu toge tay ji ba reconnaître li borom kërëm def macha allah na parce que bu ko neexon aussi mën na jëf wala mu nekk di def yo xamanteni bi moy lolu mais laf suñu mama chérie aussi dañ leen di nuyu à passage euh, di moins euh, autant pour moi ngeen baal dañ leen di nuyu bu baax parce que nenañ su su su leg leke olam nako gërëmé choy ah tay damay jang olof deug du neex euh, ndax euh, nenañ feccum rir bu neexee nday ji mo japp ci mbagam parce que ñun tay luñu am suñu yaay yi la luñu am suñu mama yi la ah di nuyu tamit suñu mama bu baax bob nga xamné ma ngi nekk extérieur di jappalé ay njabotam machallah jappalé ko ba tay ji mu wara a dem ba am salon bopam ak borom kërëm kon machallah ñom ñepp dañ leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax parce que ñom mi japp nañ sa carrière bu baax légui dañ lay wax rek euh, fii ku fi bëggoon ñëw pour nga defaral ko xeetu baax yow da ngay déplacé wu da ngay dem di fekki ay nit di leen defaral wala ou bien ku bëgg da ngay ñëw fii ci salon bi nga defanteeg moom yu baax. waa Ndeye Alima daan nañ ko def nag waaye bin ibbee ba tey moom defatuñ ko wax dëgg sa ah, yàlla. parce que boo xasee ba ibbi pour nga déplacé wu day doon loo xam ne day xaw a metti su su nga yor ay doom aussi. waaw fiire ngay mën a ñëw ñu defaral la. waaw ñu defaral la ba mu baax. léegi yow dangay def ay tres ay coiffure ay defar xew yooyu yëpp da koy def après da ngay joxe numéro bi pour ñoom ñu jël ko su ko defee ñu mën la contacter ngeen defanteeg ñoom yu baax ci tabaski bi. ndax xam naa ni képp ku ko seet si moom. no di nga jongoma ba énervé ba ak yonent bi xale bi la muy make up laf cat. te amna parfum yo bëgg nak parfum de classe diw yu baax pour ngeen défar seen i teint mèche ak yëpp dañ koy jaay daw leen ngeen ñëw sét ci Farba ñàkk ko sét ci wërul bëgg na yi man ma sha allah légui dama lay bayyi nga joxe sa numéro ak tamit ya ma gëna xam développer say xeetu baax. wa ñun fi dinañ def ay euh, chignon au chignon ba dinañ def tres dinañ maquiller dinañ def euh ki coiffure cérémonie tout ça dinañ ko def dinañ pose cil pose ongle. dinañ defar tamit cheveux bi nañ ko defar ba mu baax yaa ma gën a xam. defar ba mu rafet daal macha allah. waa numéro bi nag moom 77 687 83 26. waaw loolu rek mooy. léegi dama lay bàyyi nga baamtuwaat ko. nga joxewaat tamit adresse bi mu gën a leer pour clients yi ñuy seetaan suñu mbokku internautes yi. Ah, ak ñi nga xamante ni bii ña ngi dëkk Bambey Diourbel pourquoi pas waa Dakar sax war la war a mën a woo nga defanteeg ñoom yu baax parce que man bëgg naa salon bi tey dem ba jur ay salon salon salon macha allah ah ndax laf cat daal jigéen bu mën góor nga te yoon la ñun tamit ñu ciy jàpp bu baax a baax a baax di wane yéen ñi nga xamante ni bi yéen a ngi seen ruq di mm-hmm. door seen waar di defanteeg nit ñi lu baax kon nag dama lay bàyyi nga joxewaat numéro bi bu baax joxe adresse bi aussi fi mu nekk pour nit ñi koy déglu gën a mën a comprendre waa salon bi moom mu ngi nekk en face mairie Bambey mm-hmm. waa numéro bi 77 687 83 26 loolu mooy numéro bi waa ay ca dëgg la ñu ngi am mbégte ak contentement ah tey seen kii lañ leen indiloon seen ndaanaan bi nga xamante ni bi macha allah moo ubbi salon nekk en face mairie bi defanteeg yéen xeetu baax képp ku bëgg a jongoma ci tabaski bi rek dawal nga wër si ko mu defal teg yow yu baax ah yoo xamante ni bi day fësal bëgg naa yow tey damay xaw a waane tuuti dañ maa seet si booleeg dafa maa defar ma xaw a jongoma kon nag ma neexee def lu ma saf Nyang ngi lay wax kontaan nañ di la encore une fois. wa man tamit kontaan na wax dëgg sa yalla ndax tamit mënon ngeene ñew jaaré ko benen côté dem fenen waaye da ngeen ñew rek taamu Farma man ma ngi leen di sante di leen gëreum di sante wa bambe aussi télé bi nak na jëm sa kaw sa kanam ndax kontaan na sincèrement parler na trop. di sante tamit sama élève yi ndax tay ji ben lam du yëngu wax deug sa yalla di sante sama waajur di sante sama borom kër ak ñama nekkal ñepp na trop kontaan naa merci ma chère ñoo la gën a di leen joxaat di daye rek ci yeneen seen xeetu baax ñu war a ñëwaat ci salon bi wane leen wàlle yeneen yu baax one love ci kanam ma def ma demaat ak yéen benn doxantu bu ndaw ndaw ndaw ci biir marché bi pourquoi pas teg leen foofu seen baaraam ñu may ma clip bu am jom ma daal di fëlaaleeg moom sànneeku man taalibe Serigne Saliou bi nga xamante ni bii xale ñàkk jariñu lépp lu laal gën képp ku ma ku nekk nga ma salam alaikum téléspectateur VF TV ni ma len ko waxee sank rek ah mbokk téléspectateur VF TV bok internautes yi ah tey dañoo ñëw marché Bambay tourné fi suñu fësal plus fësal bi nga xamanteni bi nak nag macha allah lépp loo xam day xeetu bax rek man dama fay dugg ak yeen lu bax, ah won len ngeen di sajj di fëlaale di def lu len saf Tay dañu ñëw nak seet ma fi ma dëkk moo damay fëlaale ni, di sanéku ca ba muy moom daal di ñëw seet xalé bi nga xamanteni bi ku mu prêt à porter rek non lo def rek dama koy daal di kokan la Mor lay doon Mor Faye mu defanteeg yéen yu baax ah ci tabaski bi parce que après tabaski lendemain bi da ngaa war a def séeréer tubaab bu ne muut soit nga choisir sa benn robe wala nga def sa benn jiin waaw bu bari doole nag daal di laal basket ca suuf ga xam naa ne man après dafa may indil man pata bi parce que à tout moment damaa war a def sañ sa def jongoma pourquoi pas takkaat samay jiin yu am jom waa dama koy bàyyi mu daal di nuyoo présenté wu wax ak yéen xeetu baax moo ñu ngi lay nuyu bu baax moox di la ziar di am mbégte ak contentement ñëw ci sa place si la tey. ñoo ngi leen di fay ginnaaw bi nu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar waajur lii dama see waaw ndax nit ki amul lenn fi mu dëkk ndax si àll bi laa nekkoon mais dama xam ne nit ki amul leen lu dëkkam li ngay sàncal waa àll bi nag wax dëgg yàlla sàncal ko sa waa dëkk jigéen ñi nag ak góor ñi indi naa leen bagage bu rafet jéenu bu rafet am na bu yu rafet am na bagage góor bagage jigéen lépp ngir waajal tabaski bi nag waaw sama xol sedd na nag si yéen yéen télé waaw television bii daal moom VFtv waaw première chaîne dédiée aux femmes. waaw kay. chaîne bi nga xamante ni bii macha allah. chaîne bi nga xamante ni bii macha allah depuis ma ni waaw ba léegi neewu ma deet parce que ñam naa ko bàyyi naa ko amul fenn man maa leen xas ba ñam ñime leen nag ca ba muy moom lépp loo leen ma filmé ru rek bugguma ak sama caméraman yi nga xamante ni bii lépp lu ñu filmé wul rek defe naa ni loolu baaxut ah. kenn du yéen ci miim réew tey dama bég comme ni ma leen ko waxee ndax sama dëkk lañ ma fekk si muy fan baa Bambey ma ñëw ci marché bi seet ci ndaanaan bi nga xamante ni bii xale bu jigéen bu bëgg a belli ci tabaski bi def ba mu gën da ngay ñëw seet si Mor Faye ma ngi nekk ci marché bi en face tailleur yi fi ñuy ñëwee léegi dama leen di bàyyi mu jox leen adresse bi jox leen numéro bi ñu daal di doxal feneen rek woyal parce que temps bi daf ñoo xooj dëgg du neex waaw marché bi moom yomb naa xam place moo rek adresse bi moom yomb na nii la rek 77 410 04 24. dëgg la 76 883 09 81 fii la. ku ku bëgg a sol rafet daal boo ñëwee fii da nga sol bagage yi moom rafet na boo di góor yaa ngi nii bagage jigéen yaa ngi nii yëpp bagage yu bees la jigéen ñi rek ak góor ñi leen kon del bëgg ñu sàjj lu baax lu rafet sama xol nag sedd na si yéen kontaan naa torop nag yàlla na jàmm yi léegi numéro bi da nga koy joxe waale encore une fois pour ñoom ñu gën ko noté bu baax ñëw defanteeg yow lu baax. ci ah. tabaski bii nga xamante ni bi après tabaski sax feet la. Ah. te dañoo war a sàjj ci yu baax yi dëgg du neex ay ca doxala. 60 numéro bi téléphone bi ku ko bëgg 77 410 04 24 76 883 09 81 Baye Fall bi Daaru Salaam Sañse. waaw ku bëgg a sol lu rafet daal ñëwal Daaru Salaam sa fii moom da ngay sol lu rafet te seerut lu yomb leen fiy jaay yow loolu leer na. wa ayca da ngeen di def lim leen wax rek daw leen ngeen ñëw seet si ko ah di leen jaajëfal bu baax a baax a baax nag tey lii lañ leen indi won ñëw seet si moox mi nga bi ku mu jaay prêt à porter rek bëgguma dama leen di bàyyi mu tàggu leen rek man tamit ma daal di tëj ñu daal di doxalaat feneen wéy ak yéen ba léegi ci mode de tabaski pourquoi pas parce que après tabaski da ngay belli avant tabaski da ngaa war a belli à tout moment lii laa wax moo da ngay daal di tàggatoo rek ñu di waaw xanaa di leen rek di yi di leen ñaanal lu ngeen yóotu rek yàlla na ngeen ko jot kontaan naa torop nag si yéen di leen wax ne seen liggéey bi yàlla na barkeel sama xol nag sedd na waaw xol nag moo fees ba mun maa wax waaye nag sama xol sedd na incha allah sama xol daal sedd na. ayca dinañ la seet si waat sama mbokk yi moo ngi nii ñëw leen mu defanteeg yéen lu baax waa ñu daal di tàll rek ba ci Pape gay defanteeg yéen lu baax ba léegi yéen a ngi nekk ci biir fësal ah ngeen ci ànd ak kan enfant bien préparé sponsorisé par sa maman Alima Fall lay doon taalibe Serigne Saliou bi xale bi nga xamante ni bi lu mu laal a gën lu mu laalut da ngeen may topp ndànk ma daal dem ak yéen ci diw yu baax yi Pape Gueye ngeen di am ba mu bari doole ci kanam ñëw ak yéen ay ayca mbokk de la VFtv comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi fii ci ànd ak yéen ba léegi ci Bambey ah ci seen biir émission euh, fësal fësal nag du xewee fenn chaine bi nga xamante ni bi ah c'est la chaîne boo xamante ni bi macha allah njëkk a ñëw gën a baax tey ñu daal di ñëw rek seet si waat Pape Gueye ah mu defanteeg yéen lu baax képp ku bëgg diw yu baax ci tabaski bi bëgg greffage yu baax parfum yoo xamante ni bii da nga koy laal foo romb ñu xoolaat la ak yéen célibataire yi ngeen xam ne maag yéen a yem dañu ñëw ñu seet si Pape Gueye parce xam naa ni ku mu jaay parfum nga pompe pompaat koo romb di am jëkkër dëgg du neex léegi dama leen di bàyyi mu daal di présenté wu daal di doxal wéyal def lu ko saf wax ay goro moom lii laa wax xale bi lu mu wax a gën lu mu waxul Pape ñu ngi leen nuyu di la ziar. waaw ah, asalaamaaleykum Alima ziar naa la. maa ngi delloo ziar tabaar naka affaire yi. tabaar waa VFtv VFtv. di kontaan si yéen première di Jéego Femme. ah bon ah

dëgg la léegi képp ku bëgg a belli ci tabaski bi am teint bu baax teint bu jongoma teint bu màjj màjj nan ngay def mm. pap nga génne ñoom xeetu diw yu baax ñoom xeetu sërëm yu baax taay damaa xaw a ñuul te damaa war a jongoma à tout moment nan laay def tamit nga defanteeg man yu baax bul wax dara bañ a tayal ñëw fii dëgg lool wax wax ma li nga bëgg bañ ma sa bopp waaw kay nga defal le ménage yu baax dëgg la tew ci temps nga am teint bu pop dëgg la ah teint bu métissé bu rafet dëgg la boo xam ne macha allah diw yu baax yaa parfum yang yang ini ngi fi yang ini ngi fi cheveux yaa ngi fi macha allah ñu ngi fi daal pour waa Bawol daal pour Bambey daal suñu sañoon daal franchement ñun Bambey donc lañ jëm moo tax mhm. a ah, jóg waaw développement Bambey pour Bambey réussir luñ fu eh, produit buñ tudd mau mu am Bambey interest tax a jóg mu waa dégg ngeen li mu wax moom nee na pour Bambey lu koy jëmale kanam rek lay dox waaw ci lay wax aussi ba képp koo xamante ni bii rek bëgg nga lu baax da ngay daw nga daal di ñëw seet si Pape ma ngi nekk ci biir marché bi mu defanteeg yow lu baax defe naa ni moom sax xale yi soog a judd sax xam nañ Pape ki nga xamante ni bii képp ku mu jox diw nga sa yaram daa di peeli ki nga xamante ni bii bépp parfum boo laal mu jóge ci Pape Gueye dëgg du neex foo romb ñu bàyyi la xel ngay jeeg nga nekk jànq ci yam dama leen di wax yéen jeeg ji ngeen daw ñëw jël si parfum yi ñuy xoojee cuuraay leen di bàyyi nag mu daal di joxe numéro daal di gërëm ñu daal di tëj ba beneen yoon lu neex du doy dama koy dagg rek ñamali la woon. waaw kay mm, loolu moom waxtuñ ko waa Bambey moom franchement mënu ma leen a fay. ñëpp dañoo xëy rek mais loolu noonu la noonu la day bëgg mbokkam. Mm-hmm. xam nañu Bambey moo tax a jóg ñoom tamit waa Bambey lañ ñu jàpp ci. ñoo jàpp bañ toll fi ñu toll tey mm-hmm. ñu na fay franchement xale yu ndaw yeek ba jank yeek mais surtout jank ji nak jank ji mom moom ma sha allah dégg loolu xale jigeen sa classe wa legi dama lay baye nga joxe sa numéro wa numéro ñu daal di jël numéro bi rek jox ko daal jox ko téléspélé télé euh, euh, comment dire euh, ñi nga xamanteni bi ñi ngi nekk di ñu seetaan ñu daal di jël sa numéro defante ak yow lu baax ko wa pas numéro bi nak li la mom 77 la 759 32 77 759 32 27

moom la si suñu réew mii su ñëpp defoon yéen ba léegi Sénégal développé na di la ñaan di la encouragé gën a góorgóorlu xam ne nag affaire moom yombut mais lu neex bu lu baax du yomb bala muy bala muy bala muy bala muy baax rek day métti ba pare door a yomb door a baax ngeen góorgóorlu foncé bañ a gestu ñaan leen ba mu dem mu dem ba doon télévision bu bu ngande bu gën a siiw ci Sénégal ma loolu laa leen di souhaité leen ko ñaanal ayca lii lañ leen indi woon ci Pape Gueye defe naa ni gis ngeen li mu wax dégg ngeen li mu wax képp ku bëgg teint bu baax képp ku bëgg a belli ci tabaski bi da ngay ñëw nga daw seet si Pape Gueye ñàkk koo xam wóorut di leen wax rek maa ngi leen di joxaat rendez ba ci centre commercial bi ñu daal di wëyal doxal def lu ñu saf ci tabaski bi ko pas topp leen ma ba tey ayca yéen a ngi ci fësal ba léegi tey nag xewewul fenn lu dul sama dëkk dëgg du neex muy Bambey lañ ma ñëw fekk si ah defal ma surprise boo xamante ni bi macha allah di leen jaajëfal sama caméraman yi sama caméraman yu ñaawul yooyu ah musa Fallou di am kontante bu baax a baax a baax bi ngeen ñëwee fekk si ma ba fi ma dëkk di leen wax ni rek tey dañoo ñëw ba ci marché Bambey ah war defanteek defanteeg yéen lu baax ci tabaski bi wan leen a wanale xeetu baax baax yi nga xamante ni bi dañoo jëm ci événement boo xamante ni bi macha allah benn événement bu dul feetu tabaski ku xam tabaski nag boo nee sañse tey dañoo ñëw seet si ndaanaan bu mag ndaanaan muy kan Assane Mbaye ma ngi ci centre commercial bi xale bi nga xamante ni bi képp mu maaseel ci lu baax rek bàyyi nga ko xel ma ngi sisolu amul fenn tey dama leen di bàyyi rek mu daal leen di nuyoo ah waxanteeg yéen lu baax ñu daal di doxal def lu ñu saf ak suñuy modèle Assane maa ngi lay nuyu. waaw ah maa ngi lay fayaat encore une fois bu baax a baax a baax. ah merci beaucoup vraiment. léegi tey dañu ñëwoon seet si la nga wan ñu suñuy xeetu model yu baax joxe sa numéro ñu defanteeg geew lu baax yaa ngi nekk ci chaîne bi nga xamante ni bii mooy VFT bi première chaîne dédiée o femmes. waa tey nag dañoo déplacé wu uniquement pour ma ñëw seet si sama tailleur bi nga xamante ni bii macha allah lépp lu mu sise wut rek bugguma xale bi nga xamante ni bu jàppee tay baas na mu koy def a ëpp na kooku mooy kan Assane dama leen di bàyyi rek mu daal di leen waxan euh, waxanteeg yéen lu baax wane ay xeetu modèle am joxe numéro am rek ñu daal di defaateeg yéen leneen lu gën a baax. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si sa tur wax dëgg yàlla euh, tey moom kontaan naa vraiment kontaan te li ngeen def da ngeen ñoo siggil teg ci daal waaw waaw waaw waaw nee naa dëgg neexul euh, képp kuy wër tay baas bu baax wala tay baas bu ne ah, soo yeboo xoolal man la maa fi ne surtout yëpp bu baax bi man maa ko yor dëgg neexul ma mais tamit loolu su passé mm-hmm. ah, ah may euh, san euh, sama xale yu baax yu yaru yi wax ah. dama leen di saaga dama leen di dóor mais ñoom daal kaar macha allah waaw ah eh, <laughs> sama taaw bu góor bi ah non <laughs> man daal kontaan naa vraiment kontaan naa xaar ma daal leen wan leen sama ay émission bi moo koy reeloo nii dëgg du neex parce nag macha allah. <laughs> waaw dëgg neexul ku fi ñëw da ngay ree di xàqataay di ki def lu la saf. non nii la ñuy def ak yeneen. xew na dëgg neex sama tay baas comme ah. ko waxee ku bëgg marinière yu baax marinière yu ne muut da ngay ñëw seet si Assane mu corote ko def ak yow lu baax. waaw gis nga daal di lakkal sa alaaji say xeet toq tay baas say xeetu toq marinière. waaw xoolal ma lii waa déggal li waa dëgg neex sa verte bala ca vert bala cam dama ko ragal ñi meewu ma ko sax lan daf may gaaj <laughs> ma ne ko mag may lakk nii waa li lan la waa kii lu mu veer lan la ka xam nga ni kii xaw ma célibataire la xaw ma madam moo ko moom waaye bis bu ko solee lépp lu mu laaj rek na jàpp ni validé na. ah waaw dafa leer déjà fait. ah merci beaucoup. <laughs> waaw kay waa déggal lii marinière lan la dama koo ragal dafa may lakk. mbaadu <laughs> mustaam lépp loo xamante ni bii rek gis ngeen ko fii ah moom moo fi jaaroon muy kan Assane. muy kan Assane macha allah ki nga xamante ni bii bu jàppee tuuti nam koy def oh dama koo ragal macha allah xale bi lu mu laal moo gën lu mu laalut moom nag émotion bi moo ko jàpp ba mënta wax mais da ngeen koy comprendre rek lépp loo leen fi gis rek yu ko ma ci biir mu ci tabaski bi dama leen di bàyyi rek mu jox leen numéro bi ndax mënul wax da ngeen leen di mu jox leen numéro bi ñu rek ba beneen yoon Aïcha joxal sa numéro. Euh, 77 la 728. 39 71. yena dal kep képp ku bëgg tey baas bu baax. wala nga bëgg defante soo seet see Assane Mbaye car machallah car macha li nga jël paie. yaay jël pee daal. mais kontaan naa soxna si vraiment kontaan naa. maa la gën a kontaan si alima nga am fii. Ah, waaw ah, dëgg neex ah waaw dëgg neex taalibu Serigne Saliou nga fekk si moom it. fii lay xewee fii lay tàngee fii lañ koy corotee amul leneen. ah vraiment kontaan naa vraiment kontaan naa lool merci beaucoup. Aïcha comme ni mu ko waxee rek Assane lañ leen indi loon man ci centre commercial bi képp ku bëgg lu baax rek dawal nga ñëw seet si ko ma ngi fii Bambey di defanteeg yéen lu doy waar xale bi lépp lu mu siso rek man bëgguma waaye maa leen di joxaat di daje ba léegi ñu seeti seetiwaat ay ndaanaan ci biir fësal one love ayco comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi yéen a ngi ci biir fësal ba léegi ngeen ci ànd ak kan Alima Fall taalibe Serigne Saliou bi enfant bien préparé sponsorisé par sa maman du ma taay di ko wax ndax nee nañ feccum liir bu neexee yaay jaay jàpp ci mbagam te ma maman adoré dama ko bëgg daal dëgg du neex sama xaritu xol boobu ah di nuyu aussi ñëpp ñoo xamante ni bii ñag ñuy seetaan rek maa ngi leen di bigo bu baax tey nag dañoo ñëw ñu seet si ki nga xamante ni bii képp ku mu jaay prêt à porter rek nga sañse bugguma day jaay yére góor di jaay yére jigéen muy kan Modou kumba nekk fii ci Bambey ah tali bi nga xamante ni bii ma ngi jëm ci marché bi rek boo ñëwee mu defanteeg yow xeetu baax nga daal di sàjj belli def lu la saf ci tabaski bi dëgg du neex dama leen di bàyyi mu daal di nuyoog yéen rek moo ñangi lay nuyu di la ziar maa ngi fay di leen ziar bu baax a baax. Mm-hmm. di leen sant di leen gërëm seen seen teewaay fii. waa. VF VF maa ngi nuyu yéen ñëpp première chaîne di Diéw Fama mm-hmm. waaw waaw ñun ñu nekkal fi jigéen ñi ak góor ñëpp si marché bi. di jaay matériel yu baax yu am solo si dëkk bi nii. waa lépp nag pour Bambey la bu ñu si nag Bambey ñu dàq sañ si ñëpp di sol lu rafet di sol lu am qualité. dëgg la loolu moo ñu ayca dégg ngeen ni mu ko waxee lépp pour bambay kon dama leen di ñaan ngeen daw ñëw seet si Modou gaaw gaaw gaaw mu defanteeg yeen yu baax parce que tabaski bi sañse la da ngeen war a sañse yeen xale yu góor yi def boo yeen xale jigéen yi da ngeen a war def lu leen saf man pata bi sax damay jéenu dëgg du neex moo dama lay wax rek nga daw nag daal di wërali pata seen pointure jéen dëgg du neex ndax à tout moment dama war a def sama bu ne lendemain tabaski pourquoi pas tafan lay xewee fii nag ci place moo mu defanteeg ñun yu baax ah ñu daal di fëlaale def lu ñu saf feet yi daal di di valider mo dañ lay laaj rek euh, sa fi nan nga def ba ubbi ko ndax dañ la jappalé wala dañ la financer wala ya dem ak sa dolé bop yow kese parce que machallah élève nga won dal suma djumul légui lan ban idée nga am kani da nga wara tek kay yi di ubbi sa place euh doomu bambay di ci jariñoo ngay ak ñom yu baax dama lay laaj rek kan mo la financer wala sa moyenne bop la ah waa ñun de xam rek ay jeune lañu ne ci dëkk bi di débrouiller ndank ndank yi dem gaa ak li suñuy moyens bopp la kenn financé wuñu moom à part à part suñuy parents yi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk dañ teg loxo lu ñu am ñu bokk ak ñun bàyyi ñu ñu bàyyi koog ñun bokk diñu diñu diñu motiver son lu ñu si dara moo tax ñu taqale ba léegi ñuy mënti dem waaw loolu daal la moom ñu moyen bopp la ñuy demee moom waaw ayca dengen ngeen ni mu ko waxee kon góor baax na jigéen baax na dama leen di wax rek lépp lu waay mën a liggéey rek mu nekk lu leew dawal nga def ko parce que jamono ji dama jàpp ni toog xeewi na góor ñi dañuy daw jigéen ñi dañuy daw kon nag dama leen di wax ngeen daw si gaaw ñëw seet si Modou mu defal leen lu baax après tabaski ak avant tabaski pourquoi pas parce que ki ñàkk koo xam wóoru dama lay bàyyi nga daal di gërëm ah daal di santaat waa VFTV télé bi nga xamante ni bi yéex a ñëw bi lañ doon jooy waaye depuis mu ñëw ma ngi fi nag di def lu baax di sàjj ba mu belli def ba mu gën dëgg du neex ay ca ca caméra yu leer ya la moo du tàggatoo waaw maa leen di gërëmaat encore di leen félicité surtout yow Alima waaw yàlla boole ñu nag nga doon nga sama jigéen bu baax di jàpp ci affaire bi jàpp ci liggéey bi ñu leen di ñaanal rek fa ñuy dégg télé yu mag yëpp ñu leen fay dégg ngeen àgg foofa parce que lépp pour raison Diourbel la ñoo bokk région bi bu région bi demee ñun ñoo dem waaw kon nañ ñaanante ñun ñëpp rek yàlla teg ñu loxo ñu dem ñun ñëpp di leen sant di leen gërëm aussi di sant client yëpp nag di leen gërëm parce que ñoom it ñoom la buñ demee ba sañu andi bagage client ya tax foog ñu boole leen si ñoom it di leen sant di leen gërëm waaw mm-hmm. ayco léegi dama lay wax rek nga daal di joxe sa numéro ah après client yi seetaan daal di koy jël ak client yi mm, xale góor yi ñëw leen ngeen jënd nag offrir seen gel yi ndax lendemain tabaski da ngeen war a def ba mu gën dëgg du neex yéen tamit xale yu jigéen ñi jënd leen ngeen jox seen jëkkër yi ñi nga xam ne dañuy sëy jigéen day jonge daw leen ngeen seet si Modou xaar ma jox ko rek mu daal di leen di jox numéro bi ngeen daal di koy woo mu defal leen ba mu gën ngeen sàjj be li def lu leen saf ay ca Modou numéro bi. waaw numéro bi mu ngi doon 77. 784 05 68. tigo bi doon 76 695 17 42. loolu mooy suñu numéro waaw ayca léegi jël leen numéro bu baax baa ngi noonu ngeen ñëw woo Modou mu defanteeg yéen yu baax ngeen belli def lu leen saf ci bëri yu baax yàlla ak tuba yu baax yi di leen joxaat rendez-vous ci fàllu rek ñu daal di def ba mu gën dëgg du neex topp leen ma ba léegi yéen a ngi ci biir émission Fësël Plus ba mu gën Aïcha ba léegi yéen a ngi ci biir fësal dëgg du neex ma daal di defaat deuxième attaque rek daal di jongoma ba belli ba mu yàqu nii fii nag boo leen ko gisee du fenn fi nga xamante ni bi tailleur bi nga xamante ni bi lu mu sisowit rek ñimewu ma sama rakki xool sama rakki bopp muy kan Fallou Galas ah Fallou Couture laa ñëw seet tey mu génn ak man ci tay baas bi xamante ni bi macha allah xale bi nga xam ne day ñëw ba mu gën ñëw ba mu baax daal ne ma mag ji solal ah ndax dangaa war a tout moment xale bi jàpp ci samay combat mooy kan Fallou Galas ma ñimee ko torop tey nag dama koo ñëw seet ci biir fësal gis ngeen yu njiic sama ginaaw ak yi ci bir machallah ak yi ngeen gis tamit sama sœur d'amour bi mi dag na la ci ci el bi ah du kenn ki nga xamanteni bi moy fallu leg dama len di baye ngeen top ma dank ma daal di dugg ak yeen ñu daal di sajji fëlaale def luñu saf mu nuyoo wax ay gros mom ci xeetu tabaski wax du am dem wax ne ko tire ngi ni ku bëgg lu baax rek waaw dang fi ñew rek seet ko waaw ki la mom sama mag la waaw mu ngi ni xam bàyyi leen ak hoàng diện ok xam naa ne émission bi moo ko jàpp te sekk la sant dëgg du neex xam nga moom heure yi bu njoganikuwul du mën a wax ak yéen dama leen di ñaan da ngeen comprendre ko ñi ko war a summi nañu taxaw ndax dafa xiif bi ma ñëwee la naan ma Alima tey émission bi duma ko mën a développer parce que damaa xaw a xiif léegi dama leen di bàyyi rek ak sa damouram mu daal di waxanteeg yéen xeetu baax jox leen numéro yi dëgg du neex ngeen ñëw daw seet si fàllu lu mu laal gën lu mu laal mu daal di defanteeg yéen seeni xeetu tisi bépp xeetu baax baa boo rek ñëw a seet si fàllu galas couture kenn du moom ci mim réew Aïcha Ami ña ngi lay ziar. delloo ziar kontaan sew kontaan ci yéen ñëpp. ngi ko defee nii. waaw sëñ Fallou moom waaw mooy Fallou Couture nii sekk ba sax xees papa maron yaay kii mooy Serigne Fallou. waaw lu mu laal moo gën lu mu laalut. waaw macha allah ñëw rek lay def barke sëriñ Touba. waaw sëñ Fallou Galas moom lañuy ñu àndal nii mooy ku baax xale bu yaru ku teeg ku yem ci lox macha allah lépp lum lum dóor daal mooy loolu. dëgg la waaw ñëw rek lay def macha allah. ok dégg ngeen comme sëram ni mu ko waxee macha allah xale bi bu ñuy wax ci moom xeetu baax du ñu doyal parce que lépp lu magam wax rek am na lu mu bàyyi kon kii bu ñu tax bu ñu taxawoon di wax ci moom lu baax defe naa ni fi la ñuy fanaan kon dañuy bàyyi rek suñu borom bi am fay mu fayal ñu ko di ko wax ca kaw ca kanam ci lu baax dañ leen di bàyyi mu jox leen numéro bi parce que ñoom mënuñu wax ay sekk sekk la ñu sant nag moment yi yéen a ma gën a xam ñi summi daal xam naa ni nañu waaj fas yéene leen a summi waaye xam naa ni ca jaune ba la waaye dëgg du neex ca vert ba la daal di may jëlal li ci ginnaaw rek vert la def rose dëgg du neex ah macha allah def chemin euh, def euh, mauve rouge en ah, jaune ba ca wet ga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bi macha allah laf cat xale bi lu mu laalut wax naa leen moo gën loo xamante ni bi yaa ma gën a xam parce ñàkk koo seeti kat wóorut jóg leen ngeen daw ñëw seet si Fallou mu defanteeg yéen lu baax ci tabaski bi dama leen di bàyyi mu joxe numéro bi numéro di mooy daal di tàggatoo ñu daal di wëyal rek dem seetiwaat beneen ndaanaan suñu sista boo xamante ni bi moom moo ci des suñu paree rek ñu daal di tëj yaatal kontaan ci yéen dëgg du neex am ami dañu lay bàyyi nga daal di tàggatoo joxe numéro bi ma sœur waa bëgg nañ leen yéen ñëpp waa di ziar nag ñu ñu bokkal place bi emprunté yi ñoom Mohamed sëñ xaadim Aïcha Bousso Mbay sëñ Fallou bàyyiwuñu kenn géar nañ leen ñun ñëpp bëgg nañ ne numéro bi 76 76 585 28 86 ok aja baamtuwaat ko téléspectateurs eh, mbokk yi lay seetaan gën a jëlaat numéro bi bu baax ndaxte numéro bu baax bi du fenn fu muy xewee lu dul ci fàllu parce que heure bu baax bi du xewee fenn lu dul ci fàllu te dama ne la ñëw yu baax yi tamit du xewee fenn lu dul ci galas baayu mbenn kon nag numéro bi dama bëgg muy biir ca kaw ma lay dégg ay ca siggil ma lay seen ami bu baaxee ba léegi ñu dem 76 585 28 86 76 585 28 86 Fallou Couture jaajëf béggee nañ la dëgg la maa ngi ko bëggoon laaj lu bari nag mais xam naa du mën a développer ak moom parce que dañu timide mag dafa timide rakk dafa timide macha allah mais nag noonu la ni da ngay bari kersa waaye bul mel ni man man moom mooy loolu damay tërërit te damaa kontaan boo leen ma xoolee xam ni alima ba ngeen daan gis ak alima bi ça fait deux parce que dañoo déplacé wu ko fenn lu dul fi nga xamante ni bii fi laa dëkk muy Bambey ma leen di tiitaroo di leen safoo di leen damoo di leen faale ngeen ñëw seet si ma ba waxal jàmm di nuyu Moussa mi nga xamante ni bi lu mu filmé wut bëggu mi nga xamante ni bi lépp lu mu laal a gën lu mu laalut xanaa du yow yaay bàyyi mbeen juróom-ñaari sëñ Fallou boo woo da lay daal di wuy si ngeen daal di fëlaale def lu leen saf kon dama leen di bàyyi rek ngeen jël numéro baax numéro yu baax yi ma leen jox ci biir fësal ah lépp loo xamante ni bii rek da leen di bégal ñun dañ ciy dox tey Fallou ngeen àndaloon waa dama leen di jox nag ci kanam tuuti ngeen teg foofu seen loxo ma daal di dugal clip dem waat suñu beneen daanaan ci biir fësal ca ba ñu jógee ci fàllu rek dañu daal di ñëw seet suñu sista damook ah, xale bi nga xamante ni bi moo jaar ci robb bii dëgg du neex ma daal fëlaale sànneeku def lu ma saf ca ba mi moom waa ko kan lay doon say xam naa nag ñu bari xamuñu ko Bambey parce que moom dafa toog ci ruqam di def yu baax yoo xamante ni bi macha fii la fëleeg man Moussa da ngay daal di jël sama toq robb ndànk ah daal di génn man ci robb bu baax bëla bu am doole dama leen di bàyyi rek ma daal leen koy indil nii mu taxaw sama wet ñu daal di nuyoole leen ko mu waxanteeg yéen xeetu baax parce que ndaanaan la ci biir ndaanaan yi mais nag da doon na bëtu mais tey laa leen koy fësalal ba waa Bambey yëpp jot ci waxal jàmm yee eh, da ngeen a am doom joo xamante ni bi macha allah ñaq jariñu rek la gëm mais dafa toog ci ruqam yor machine am bu ne muut nekk jigéen boo xam ne dafa gën dafa gën boppam nekk jigéen boo xamante ni bii dafa mën góor dëgg du neex parce que lu mu am rek ñàkk jariñu moo ko gënal kookan la say lay doon sama sista d'amour ah doomu yaa saajo ji macha allah yow boo baaxuñu laaj la ko papa dafa baax yaay baax kon nii nga war a mel sekk si nginaar dama lay bàyyi rek nga daal di dugg si ndànk dal di ñëw nuyoo ak téléspectateur VFtv ay

waa dee ngeen nee na mag garam sant di ñu gërëm di ñu nuyu yéen a ngi ci chaîne bi ngeen xamante ni bii nag du chaîne bi nga xamante ni bii du fenn man wëriwuma lenn fenn parce que nee nañ lay tàngee fii lay xoyam-xoyamee ñàkk koo jàpp wóorut dee leen abonné di wéy di defanteeg yéen ñuy wéy di defanteeg yéen lu baax VFtv la première chaîne dédiée aux femmes tey nag da ngeen di ak bii comme ni ma ko waxee woon dafa mën boppam mën bi ma def ni moo fi jaar ak yeneen bii sama jongoma dinañ ñëw dugu ndank ma daal di koy rek ñu daali doxal ak yeen ba légui yéen ngi ci Fësël Plus a ah, ñu war leen suñu xéetu baax légui yow say dama lay wax rek ne la ñaw bi yag nga ci wala fan yi nga ko commencé ci tabaski bi ak sa patient euh, sa sa bëgg-bëgg la wala lan mo la ci dugal ak lan mo tax jémo wut place ci mbéd mi comme seen buntu kër ndax am nga fi benn caisse pourquoi yow wo say bagage sa machine fofu di ñaw nit ñi di xamni yow tailleur nga parce que talentum da leen koy neub nak ma wax leen ko Bambey ñu bari xamuñu ni tailleur la ñu bari ci marché ba rek lañ ko xamee mais Serigne Saliou xam na ni moo jaar ci robb bu yànj bi xam naa ñu bari nag duñ ko gëm parce que dañu foog ni loolu rek la mënee muy ñëw marché bi defanteeg yéen ci leneen mais sans jigéen bu mën góor la day dóor waaram mën na ci bii boor mën ci bee boor dama leen di bàyyi rek ma posé ko question mu tontu ma pour ngeen xam ni ndaanaan la ci biir ndaanaan yi say dama lay laaj rek ñaw bi ba xam événement yi motax nga dugg ci wala yow sa sa sa bëgg-bëgg la ak foko jàngé waaw alima ñaw bi dama ko jàng yàgg na torop nak ndax bima bayé école la commencé jàng ñaw parce que luma la légui yalla def nak. en même temps dama bëgg commerce ci commerce bi la gëna top nit ñi gën ma ragné ka ni businessman la ci marché bi ñu bari xamuñu tamit sama métier moy couturière laa daal. waaw su ma dooree semua marché suma ma mang sama ñaw. waaw lolu moy firndeel tay li nga sol ni ni nga ko waxee nonu la lima sol ni tamen maa ñawal sama bop am ñeneen ñuy dugg si comme ni nga ko waxee won présenter lima ma sama métier la couturière la voilà deug la de ngeen nim ko waxe kon lima len wax rek mo nek ba legi neena len mën na ci bi bor mën ci bi bor te ni la jigen neena len da ngay bari pax parce que olof nyaay wax nako neena gi na da ngay bari pax te man taamu naa bi nga xamanteni bi dang koy sentu fe mu daadi genn fe rombu la fa ndank ta say non la def ak ñun parce que li mo lay won ni gor baax na jigéen baax na waa doon du te nga am jom buñu xeb dara lepp lo xamanteni bi rek liggey la bo xamne daf lay ci kaw ci kanam ci lu bax def ko lepp lo xamne dang ci ñak rek di ci ñu yor ci say waajur yor ci sa njaboot rek man defal man dama bëgg jigen bu gëm bopam parce que dëgg du neex la femme forte nak bokay wër da ngay ñëw ci talibé Serigne sari man Arima Fall motax tax jigen bu gëm bopam rek dina la sét ci dëgg du neex comme ni ndax surprise la ko defaral yëgul woon ni sax kan ni dina ñëw dama ne ñawal ma rek mais xamul woon ni dina ko séti dama ko bét mais kon dina genn ak ñun fu garaaw ndax xali bi la muy ciso laf dama leen di wo sama jongoma yu ñaawut yi ñu dugg rek ma daal woné li say def te am na yeneen yoo xamante ni bii après lay doon ci biir fësal mais dañ koy tënk fii comme temps bi xoj nañu te sama caméraman yu ñaaw yi dañoo war a ñibbi ba jurbeel parce que tey dañ maa seet si nag dëgg du neex moo tax ma kontaan di belli di sajji def lu ma saf ay cas damay woo sama ñaari ndaanaan yi rek sama ñaari jongo yi ñu daal di dugg si mes chéri say dañ lay bàyyi nga joxe numéro bi rek ba tey. waaw d'accord Alima sama numéro mooy 77 567 49 41. léegi nak lima lay ñaan moy nga baye ma ma wane quelques modèles yi nga xamné d'accord ñaw d'accord sœur sœur d'amour amul ben problème léegi da ngeen koy may rek ah sama cameraman yu ñaaw di nga xamanteni bi luma lu leen ñaan rek dañ koy def mu woné quelques modèles am yo xamanteni bi def nako ko ak yenen yo xamné xamna dañ koy teunk nak ba benen yoon euh, temps bi duñu ko may mu daal di leen di won rek ngeen daal di gis machallah numéro bu baax baa nonu nak da ngeen koy jël rek jigen bu man goor la ngeen gën ci japp ñu jappalante Sénégal jëm kanam. Aïcha indi ma xool. Aïcha tey vax am na fi mais tey bi je crois que dafa xaw a sori dañuy bàyyi ba beneen yoon lii robu vax la hmm, gis nga fi mu génnee macha def poos yi ca côté ya bëgg naa yi ba tey lii ca bëla bëla sa bëla baax na bëla de nuit macha allah yi lay def ak yeneen ñàkk koo xam wóorut brodé jaune bu ne muut orange du moins macha allah sa bleu baax na sa orange baax na aussi dafa nekk ci ruqam dina bëtu mais xale bi macha allah lu mu laal a gën lu mu laalut sama magi xol bi xolal la mu orange dëgg la ca orange ba la sa rouge tamit nee na muut comme ni ma leen ko waxee sànq rek ah dama amoon benn surprise bu ma leen bëggaloon mais nag c'est dommage léegi damay mujjee daal di tëj rek macha allah di leen wax kontaan naa ah lii nag moo nekkoon seen émission fësal euh, du dawee fenn ci chaîne bi nga xamante ni bi mooy première chaîne DJ aux femmes chaîne bi nga xamante ni bi depuis mu ñëw ba léegi macha allah fii la baaxee fii la tàngee fii lay xoyom xoyomee te lépp loo leen soxla rek dama leen koy jox di leen jox rendez-vous ci yeneen fësal ah, ndax man yi laay def yeneen xeetu surprise tey nag fësal dañu déplacé wu ñëw di may seet si ah defal ma surprise boo xamante bi macha allah ma andi sama caméraman yu ñaawut yi muy Moussa Fallou tonton Cheikh ah yéen ñëpp maa ngi di remercier bu baax am na sama benen tons bu ma xamul turam mais dama koy daal di leb rek di len wax kontaan di sak ci yéen ñaan bu baax a baax a ngi ak kan siste Alima Fall enfant bien préparé sponsorisé par sa maman waaw dama leen di wax rek ba benen yoon ba fani yi allah di len wax wéy len ngeen di abonné ba léegi ngeen tek foofu seen loxo ci yeneen chaîne yu bes one love